الحب اللي عمره ما يشمت asalaamaaleykum mbokki déglukat yi seen mbokk seen xarit pasteur Ahmed Fall moo dellu siwaat ak yéen ci sunu émission kàddu gu sell gi te di leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam di dellu di sant yàlla sunu boroom ci turu Seydina Isa almasi bi Yeesu Kirist
الله asalaamaaleykum sunu mbokk yi ñuy déglu fii ci sunu programme sunu émission bi ñu dippee kàddu gu sell gi seen mbokk seen xarit seen doomu ndey pasteur Ahmed Fall moo dellu siwaat ak yéen di leen nuyu ku ci nekk ci turam ak santam di gërëm di sant yàlla sunu boroom mi nga xam ne ci jëmmi Seydina Isa almasi bi Yeesu Kirist moo ñu may ñu tal ko ba toog fii tey jii di sant yàlla sunu boroom di ko gërëm ci bépp jëmb joo xam ne mi ngi déglu émission bi émission bi nga xam ne dañ ko lal ci li nga xam ne moom lañu aji sax ji di yàlla sunu boroom ñuy ay jaamam wax jaarale ko ci téereem bu sell boobu nga xam ne moom lañu jox muy biibal bi waxtaan wi nga xam ne nag moom lañuy defal tey dañuy wéy rek di ubbi téere bu sell bi di jàng ci góoru yàlla googu nga xam ne yàlla sunu boroom jox nañu ko muy royukaay ndaxte du ku nekk la yàlla sunu boroom di samp ci sunu kanam ne xool leen jëmm ji ngeen def ko royukaay jëmm yooyu nga xam ne yàlla sunu boroom jox nañu leen ñu def ko royukaay dafa fekk ne seen gëm ak ni ñu taxawee fii ci biir àdduna ak ni ñu tënkee woon ci aji sax ji moo tax yàlla sunu boroom ne ñii kat teg naa ko ci seen kanam ñu doon ay royukaay jëmm yooyu nag yonent yàlla yuusufa daf ci bokk jëmm ju sell jooji nga xam ne yàlla sunu boroom wax na ci moom yàlla sunu boroom bind na ci moom ngir ñu mën a taataan ci jëmm jooju xool ni mu dundee xool li mu wax ngir mu doon royukaay mu doon yokkute ci ñun ñaari émission yi weesu dañu jàng ci téere bu sell bi gis jëmm jooju di yonent yuusufa ay jaar jaaram ñu gis ne nekkoon na nit koo xam ne nit ku nattug yàlla wàcc ci kawam lu bari la woon nekk na jëmm joo xam ne niñ ko jàngee ci téere bu sell bi ba mu nekkee tuut tànk ca la nattu yi tàmbali di wàcc ci kaw ci kawam yonent yàlla yuusufa nekk ab xale ñu jël ko yax yi dëgëragul yaram gi dëgëragul ñu def ko jaam jaay ko yóbbu ko misira mu nekk waxambaane ñu tëj ko ci kaso diir bu yàgg bu yàgg bu yàgg mu nekk ci ndaxar gisul baay gisul ndey gisul nijaay gisul maam gisul tànt gisul mag gisul rakk yàlla sunu boroom dañuy jàngal ne jëmm jooju di yuusufa ñi nga xam ne ñoo doon deretam àqan ñi sësoon ci moom ñoo ko defoon mbir bu ñaawee noonu yàlla sunu boroom nga xam ne dara tëwu ko yàlla sunu boroom mi nga xam ne moo jëloon yuusufa moomu ne danaa liggéey ci dundam ngir ëllëg mu doon royukaay mu yëkkati ko mu doon ki nga xam ne moo sësoon rëkk ci firawna bi nga xamee nag ne dem na ba ay magam yi yegsi biir misira ba xaba ba mu xàmmee leen ba wax ak ñoom dafa wax ak ñoom wax bu am solo dafa ne leen yàlla dama yabal ma jiitu si leen kon nag du yéen a ma yabal fii waaye yàlla yàlla moo ma yabal fii mu ne ay magam yooyu nga xam ne ñoo ko jaayoon ne jaam nga xam ne mujj na sonn torop torop ci loxo ñooñu nekkoon misra mu ne ay magam yooyu tey jii fii ma nekk ak loolu lépp ma jaar yàlla moo ko sababoon dafa fekk ne nag daf ko jaare ci seen loxo rek wante du yéen yéena ko bëggoon du yéen yéena ko sababoom wante yàlla sama borom yàlla sunu borom moo indi woon loolu ci sama dund kon boog nangu naa ko loolu moo waral mu woo leen taf leen ci boppam taf leen ci dënnam ne leen bu leen fàttaliku benn yoon loolu ngeen xam ne defoon ngeen ma ko bu leen am dara loo leen yi tiit ñëw leen daw leen gaaw ngeen dellu indil ma sama waajur wu góor daw leen gaaw ngeen indi mbokk yépp dalal naa leen fii ci biir misra daggal naa leen suuf su rëy jox naa leen fi ay tool kaay leen ngeen dëkk sama wet kaay leen ngeen nekk ak man ma dalal leen noonu la yuusufa def ak ñooñu nga xam ne ñoo doon ay magam ñooñu nga xam ne ñoo doon ay deretam wante yuusufa dafa am loo xam ne itam mi ngi ñu koy jàngal te ma bëgg doomu aadama bu nekk bàyyi ci xel wala bokk yàlla sunu boroom bëgg doomu aadama bu nekk bàyyi ci xel ndaxte li may wax du sama kàddu wante kàddu aji sax ji la yuusufa dafa ne ay magam lii ngeen xam ne dal na ma lii ngeen xam ne dal na ma jógewul ci yéen yàlla moo ko dogal yuusufaa ngi wax foofu ay magam yàlla sunu borom dañuy jàngal foofu ne day jël jaamam teg ko nattu yàllaa ngi ñuy jàngal foofu ne nattu mën na dal ci jëmm ji nga xam ne jëmm ju jub la nattu mën na dal ci jëmm ji nga xam ne jëmm ju dëggu la nattu mën na dal ci jaam ju nekk jóge nang ci yàlla sunu boroom ndaxte yàllaa ngi ñuy jàngal ci téereem bu sell bi nee na bu fiiraange dalee seen kaw bu leen ne man la wante nattu mën na jóge ci man dal ci seen kaw yàlla sunu boroom jël nattu jooju teg ko ci kaw yuusufa ngir am lu mu jàngal yuusufa ak foo xam ne daf ko fa bëgg yóbbu wante foofu nga xam ne bëggoon na fa yeggale yuusufa ba tey jii mu jox ñu ko mu doon royukaay faw mu jaar ci ay nattu nattu yoo xam ne nattu yu metti la nattu yoo xam ne nattu yu diis la ngir mu jàngal ci yuusufa ngir mu jàngal ñu ci loolu moo waral yàlla sunu boroom tegoon nattu yooyu ci kaw yuusufa nattu yooyu tàmbali na ko bi mu nekkee xale xale bu ndaw nga xam ne dafa tuuti woon ba waajuram wu góor boobu doon yanquba daanu ko yabal mu dem ci àll bi di sàmm dafa ne ko yow mënuloo dem di sàmm del toog fii ci kër gi moom yuusufa daanul sàmmi ndaxte dafa tuuti woon ci jamono yooyu nga xam ne toll na foofu mu toll yàlla sunu boroom tàmbali di teg nattu yi ci kawam yàlla sunu boroom tàmbali di ko jàngal yàlla sunu boroom tàmbali di ko tabax di ko tabax di ko liggéey ngir mu doon ki mu war a doon ëllëg yàlla sunu boroom nangu ñi nga xam ne ñooy ay magam jël ko dugal ko ci teen mu nekk xale bu ndaw jooy yuuxu ne leen dimbale leen ma ndaxte fii ngeen ma dugal kat boo leen ma walluwul danaa faatu mu tiit ñu jël ko dugal ko ci teen dem ba ci yàgg ñu ne kii kat duñ ko bàyyi sax ci teen bi nañ ko faat kenn ci magam yi ne déedéet buñ ko faat wante am na ñuy ñëw fële te ñooñu dañuy jënd ay jaam kon nañ leen leen jaay yuusufa mii nga xam ne danañ ko yóbbu ci dëkk yu sori yoo xam ne dootuñu ko gis ba faw ñu jël yuusufa jaay ko jël xaalis bu def ci seen poos mu nekk jaam yàlla sunu boroom nangu lu mel noonu ndaxte yàlla sunu boroom moo ko doon teg ay nattu di ko tabax di ko jàngal yuusufa ànd ceeg muñ ba mu yeggee misira mu am leneen lu dal ci kawam lu metti mu nekk ci bërëb ba yaakaar ne féex na dem ba nga xam ne dugg na ci kër goo xam ne jaam la woon wante ndax farloom ndax jàmbaaram ndax mën a liggéeyam ak ndax barke yàlla bi nekkoon ci kawam mu dem ba yilif kër googu soxna si nga xam ne moo doon soxna jaraafu kër gi dem ba teg ay bëtam ci moom ne ko kat ñëwal nga def ak man naka sudul noonu mu ne ko déedéet loolu ay la yéwén duma ko def mukk ñu jëlee ko foofu dugal ko ci biir kaso tëj ko ci kaso te kaso jamono yooyu bokkul ak sunu kaso yi tey yi kaso jamono yooyu amul organisation droit de l'homme yoo xam ne dañuy ñëw taxawal di la xeexal ñooñu nga xam ne dañuy xeex ngir àq ak yelleefu doomu aadama te muy doon xeex yoo xam ne itam xeex bu baax la yàlla na leen yàlla sunu borom dimbale jàppal leen ñooñu nga xam ne ñi ngi yëngatu ci fànn yooyu jaww yi kuréel yu mel noonu amul woon ci jamono yooyu yuusufa nekk ci biir kaso gi yàgg fa torop torop torop dem ba nga xam ne am na lu xew ci kaso googu ba mu yaakaar ne kat ah man de danaa génn fii ñooñu mu yaakaaroon ne danañ ko dimbale ñooñu fàtte ko won ko ginnaaw loolu lépp doon ay nattu mu muñ ko nekk ci biir kaso bi gëm yàlla yàlla sunu boroom nangu nattu yu mel noonu dal ci kaw yuusufa yuusufa jooyul yuusufa jël lépp wekk ko ci yàlla yuusufa jàpp ne comme lii ngi dal ci kawam fi nga xam ne fa la war a teg tànkam mooy lan gëm yàlla nangu nattu yi ba bés bi yàlla sunu borom dogalee ne kat kii léegi mat na kilifa kii léegi li ma waroon liggéey ci moom liggéey naa ko ci moom kon naa ko yëkkati jox ko garaat goo xam ne martaba boo xam ne dana yeggale ñaareelu xaaju liggéey bi nga xam ne moom laa namm ci moom yàlla sunu borom yëkkati ko mu doon kilifa boobu ci biir misira ba nga xam ne firaw na taxaw ne ne kat kii nga xam ne mooy yuusufa amul kenn ku ko féete kaw lu dul man dara doxul sama digganteeg moom lu dul siis bii ma toog muy siisu buur bu weesoo loolu moom moo yilif misira kon mbokki auditeurs yi ñu gis ne yàlla sunu boroom day teg jaamam nattu yàlla sunu borom day wàccee nattu ci kaw jaamam yàlla sunu borom nag du fiir jaamam ngir jaamam mën a dugg ci naka sudul noonu saytaane mooy fiire yàlla sunu borom dalay teg nattu mais da koy def ci anam yoo xam ne anam yu sell la am na yoo xam ne bu dalee sa kaw jàppal ne du nattu fiir la yoo xam ne saytaane moo ko teg ci sa kanam wante am na yoo xam ne bu yegsee sa kaw xamal ne lii kat nattu la yal nañu yàlla may xel yal nañu yàlla may dal yal nañu yàlla may xam-xam ba bu nattoo bu yegsee sunu kaw ñu xam ne lii nattu la ba xam yan tànk la ñu war a taxawee ah jàkkaarloog natt yooyu loolu la yuusufa def yàlla sunu borom teg natt yooyu ci kawam yuusufa nangu natt yooyu yàlla sunu borom nekkat kii li ma namoon ci moom maa ngi koy tàmbali di gis li nga xam ne maa ngi ko doon liggéey ci dundam jaarale ci ko ay nattu maa ngi koy gis kon mbokki auditeurs yi ñu déglu tuuti cant balaa ñuy ñëw ci ñaareelu xaaju waxtaan wi.
مالك اخوي حزين فرح وامسح دمع العين مالك اخوي حزين فرح وامسح دمع العين تأمل وشوف الطير بلا مطمور بلا خزي تأمل وشوف الطير بلا مطمور بلا خزي لا تقطع عياسك ما تخمم في الباسل لا تقطع عياسك ما تخمم في الباسل ترى خير الله كتير لا يعمر الشك راسك ترى خير الله كتير لا يعمر الشك راسك لا تفكر ولا تتعب
kon jërëjëf mbokki auditeurs yi ñu ñëw ci ñaareelu xaaju waxtaan wi nga xam ne tey jii benn ponk képp la muy nattu nattu yi nga xam ne day jóge ci yàlla sunu borom wàcc ci jaamam ñu jël misaal wala boog ñu jël benn jëmm joo xam ne dañuy waxtaan ci moom ndaxte nekkoon na nit koo xam ne yàlla wàcce na woon ay nattu yu bari ci dundam mu yuusufa yàlla sunu borom dañuy wax ci téereem bu sell bi di ko wax ci kóllëre gu bees gi ñu tuddee ci nasaraan nouveau testament di ko wax ci xaaj bi ñu jagleel sak ci aaya benn ci saar ñaar ba ñeent lii la yàlla sunu borom wax yéen samay mbokk waxtu nattu yi dalee ci seen kaw ak nu mu mën a de mel def leen ko ni mbég mu rëy xam ne nattum ngëm mooy ndeyu muñ kon na seen muñ dem ba mat ngir ngeen bañ a fell fenn waaye ngeen mat sëkk lii la yàlla sunu boroom wax nee na waxtu wu nattu yi dalee ci seen kaw ak nu mu mën a mel def leen ko ni mbég mu rëy yàlla sunu boroom mi ngi naan ñu nattu bu yegsee seen kaw jàpp leen ko ne mbég mu rëy nattu ñu xam ne lu diis la lu metti la xool leen yuusufa mi nga xam ne dafa mujj nekk jaam yuusufa mi nga xam ne bakkanam la ñu bëggoon jël xool leen beneen góoru gi yàlla gu mel ne Job nga xam ne nattu bi daloon ci kawam moo doon feebar wopp soo xam ne dem na ba ñépp dummóoyu nañ ko ñu ne yaram bi yàqu na woon yàqu boo xam ne xaj yi dañ daan ñëw fekk ko fi mu toog ñuy mar deret jooju nga xam ne da doon génn ci yaramam dëtt jooju nga xam ne da doon génn ci yaramam ñu ne da daan dem fekk daay mu ñëw toog ci wetu daay gi ngir tàngaay boobu di tàngal yaramam noonu la Job daan def natt goo xam ne yàlla sunu boroom tegoon na ko ci kawam natt goo xam ne dañu dem ba def la jaam mënatuloo sa bopp dara sa dund ak sa dee mi ngi woon ci loxo nit loolu moo daboon Yuusufa yàlla sunu boroom ne la mbir yu mel noonu bu wàccee sa kaw def ko ne mbégte waaw naka la jaam bi mën a jëlee lu méttee lu mel noonu def ko mbégte te munte de loolu la ñuy yàlla sunu boroom di wax nee na bu ma wàccee nattu ci seen kaw def leen ko ne mbégte ndaxte ëllëg dana leen jural mbégte ëllëg dana leen jural loo xam ne foo ko takk weesu na ko ëllëg dana leen jural man yàlla mi leen sàkk ma gërëm leen loolu la yàlla sunu boroom wax nattu metti na wante mujj ga neex na loolu moo waral mu yuusufa moomu mujj nekk mel ne buur ci biir misira fu muy jaar nit ñi sukk ci kanamam lu mu wax mu nekk lu mu bëgg mu nekk wante fekk na yàlla sunu boroom pare na ko démb balaa loolu yegsi te nu mu ko paree daf ko jaar ci ay nattu Job mi la mi ma leen wax sànq te mu yàlla sunu boroom wax ñu ci ay mbiram ci téereem bu sell bi Job dafa nekkoon nit koo xam ne ku amoon la ku bari la la woon alalam foo ko takk weesu na ko yàlla sunu boroom ci xef ak xepi mu xañ ko loolu lépp ba xañ ko ay doomam nit ñi ñëw ne ko yow mii lii nga xam ne dal na la dafa fekk da nga def bàkkaar yu rëy yu rëy moo tax lu mel nii mën la dal ndaxte lu mel noonu kenn mësu ko gis mu nekk ci ndóol goo xam ne dem na ba amul lu mu def teg ci kaw yaramam yàlla sunu boroom dañuy wax ne sonnoon na coono goo xam ne da doon dem di fekk daay muy toog ci kaw daay bi ngir tàngaay boobu di tàggal yaramam xaj yi di ñëw di mar yaram gi ngir loolu doon ci génn ñu ne bi ko ay xaritam seetsee ay xaritam àqan dañu ñëw ba jub ko dañu toog ñetti fan mënuñu yegsi ci moom toog di jooy ñetti fan bi ñu paree ci loolu ñu ne ko yow ndax defuloo loo xam ne moo waral jàngoro ji feebar bi wàcc sa kaw mu ne déedéet musuma tooñ ci jubal ak dëggal rek laa nekk ci yàlla rek laa tënku soxnaam ne ko job xam nga nooy def dëddul yàlla ta nga dee ngir coono gi wàcc la mu ne ko duma ko def mukk lii dama koy nangu ba bis bu ko yàlla sama borom teggee boo te ko teggul itam ma nangu ko yàlla sunu borom mujj ko teggil feebar boobu jàngoro jooju nekkoon ci moom yàlla sunu borom delloo ko mu bees yàlla sunu borom la mu ko mayoon démb mu may ko lu ko ëpp fuuf ba may ko aat ay doom yu góor ak yu jigéen fala job ne nag dëgg-dëgg dama yaakaaroon ne xam naa yàlla wante bi ma génnee ci natt gi laa ko gën a xam loolu la wax bi ma génnee ci nattu gii nga xam ne tegoon na ma ko moom laa ko gën a xam tey laa ko gën a xam tey laa ko gën a bëgg moo tax yàlla sunu boroom ne waxtu wu nattu yi dalee ci seen kaw ak nu mu mën a mel def leen ko ni mbég mu rëy xam ne nattub ngëm mooy ndeyub muñ képp koo xam ne nattu wàcc na sa kaw nga gëm yàlla yàlla sunu boroom nee na loolu dana la jural mbégte wante nattu teg dal sa kaw nga tàmbali wut say pexe ngir génn ci lu nekk nga def lu nekk nga wax fu nekk nga daw yàlla sunu boroom nee na bu boobaa matuloo lajj nga yuusufa lajjul job lajjul ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne yàlla tegoon na nattu seen kaw ba ci Pool Pool nee na yàlla dafa teg benn nattu sama kaw mu doon métit boroom xam-xam yi jàppoon ne benn feebar la jàngoro ju nekkoon ci moom di ko sonal bi mu nee yàlla sama sunu borom teggil ma lii nga xam ne mi ngi sama kaw yàlla ne ko déedéet duma la ko teggil dama lay bàyyi nga wéy ak moom duma la ko teggil Pool moonte de Pool da doon ñëw di ñaanal nit ñu wér ca saase da doon ñëw teg leen loxo ñaanal leen ñu wër ca saase Paul mës na toog di waxtaan ba guddee ci waxtaan wi mu am benn waxambaande bu teewee woon waxtaan woowu ñu ngi ko doon def ci kër gu mel ne étage waa ji nekk ci kaw benn fenêtre ci téere bu sell bi ñi ñuy wax ne waxambaane boobu dafa daanu faatu bi mu daanoo dafa faatu Paul ñëw teg ko ay loxo ñaanal ko yàlla sunu borom dekkil waat ruu googu wante Paul moomu àndoon ak feebar jàngoro joo xam ne ñaan na ñaan ñaan ñaan juróom-ñaari yoon yàlla sunu borom ne ko duma la ko teggil Paul dama koy bàyyi ci yow mu doon nattu mu ne ko nangu naa ko Moussa dafa amoon nattu Moussa mënul woon wax làmmiñ bi dafa taqoon teewul yàlla sunu borom def ko yonent bi mu doon liggéey ci moom liggéey bi mu liggéey kéemaan yi mu def mu rëy yàlla sunu boroom ne saa yu leen nattu wàccee seen kaw def leen ko ne mbégte mu rëy yuusufa lajjul woon job lajjul woon paul lajjul woon ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen lajjuñu woon am na jëmm yoo xam ne ñi ngi fii ci sunu biir réew mi wala boog jaar nañ fi ba làqu jëmm yooyu am na ay natt yu tegu woon seen kaw yu metti dañuy gis tey jii ne nattu yooyu musuñu ko jooy musuñu def dara lu dul nangu ko Seydina Isa almasi bi Yeesu Kirist di ñu jàngal ne nattu bu jóge ci yàlla sunu boroom buñ ko nangoo li mu ñuy jëral ëllëg mooy mbégte nattu yàlla du fiir jaamam seytaane mooy fiire wante yàlla dana teg nattu jaamam jaam joo xam ne nag nangu nga nattu bi jóge ci yàlla yàlla sunu borom nee na boo ko defee mbégte xamal ne da lay jural ëllëg ay ngëneel wante boo ko jàppee ne kat lii warul dal sama kaw ay la yéwén dama koy teggi tey jii day génn ci man yàlla sunu borom ne la boobu boobaa lajj nga matuloo te la ma namoon ci yow danaa ko dem defi ko ci beneen jëmm kon yàlla nañuy nangu nattu bu jóge ci yàlla sunu boroom yàlla nañuy nangu nattu ak mbégte yàlla nañu yàlla may xel ba nga xam ne itam danañ xam lan la ñuy jàngal ci kaw nattu googu ndaxte nattu bu wàcc sunu kaw rek am na lu ñu yàlla sunu boroom di jàngal te bu ñu nangoo nattu li nga xam ne moom mooy ñëkk a wàcc ci sunu kaw mooy sunu ngëm day gën a dëgër dañuy gën a tënku ci yàlla sunu boroom loolu moo waral job bi mu génnee ci nattu gi mu ne yaakaaroon naa ne xam naa yàlla sama boroom wante tey jii laa ko gën a xam bi mu génnee ci nattu bi ci la gën a tënkuwaat ci yàlla ci boroomam yuusufa ba mu génnee ci nattu gi ci la gën a tënku ci yàlla Pool donte génnul ci nattu gi bi ko yàlla ne nattu bi maa ko teg ci sa kaw te duma ko tegg bés boobu la gën a gëm kon yàlla nañu nangu nattu ndaxte nattu fu mu ñu yóbbu mooy lan buñ ko dangoo dañuy gën a tënku ci yàlla sunu boroom te ku tënku ci yàlla sa boroom kooku texe na kooku xéewal ak yiwu yàlla dana wàcc ci sa kaw ba mu bari moo tax mu ne ah bu nattu wàccee seen kaw na ngeen ko def mbégte mu rëy ndaxte nattu ngëm mooy ndeyu muñ nattu boo ko nangoo da ngay muñ yàlla sunu boroom dañu ko jàngal ci téereem bu sell bi ci biibal bi yàlla sunu boroom dañu jàngal ne nattu day jóge ci moom yàlla sunu boroom dañuy jàngal ci téere bu sell bi te nee na lépp li nga xam ne wax naa ko bind naa ko tënk nañ ko ci téere bi dama ko def ngir ngeen jàng ci ngir mu doon yokkute ci yéen dañu toll jamono joo xam ne nag ñaxtu bari na ndogalu yàlla ñu bañ ko nangu natt bu jóge ci yàlla ñu ne ay la yéwén déedéet lii duma dal dama koy teggi dama koy dindi sama kaw yàlla kenn du jàmbaarloog moom lu mu wàccee sa kaw rek nga nangu ko bu indee nattu nga nangu ko bu indee nattu nga nangu ko boo ko nangoo rek yiwam dana wàcc ci sa kaw boo ko nangoo rek ay wërsëgam ay xeewalam dana wàcc ball sa kaw ba foo ko takk mu weesu mu ne bu nattu wàccee ci seen kaw def leen ko ne mbégte jëmm ji nga xam ne nag gëm na ci Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ yàlla sunu boroom nee na jëmm jooju dana ràññee natt bu jóge ci yàlla nee na jëmm jooju dana am kàttan jëmm jooju dana mën a dékku natt bi nga xam ne wàcc na ci kawam te jëmm jooju yiwu yàlla dana wàcc ci kawam Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ moo ñuy kàttanal moo ñuy jox doole moo ñuy jox dal moo ñuy jox nangu ba bu natt wàccee sunu kaw ñu nangu ko kon yàlla nañu tënku ci moom yàlla nañu tënku ci moom jëmm jooju nga xam ne moom la ñu yàlla sunu boroom yónni ngir mu nekk buntu muñ wante buntu texe buntu mucc mbokki auditeurs yi seen mbokk seen xarit pasteur Ahmed Fall moo nekkoon ak yéen ci sunu émission kàddu gu sell gi di ñaan yàlla na yiwu yàlla wàcc ci jëmm bopp boo xam ne yaa ngi yeewoo fii ci biir Sénégal yàlla na yàlla barkeel sunu réew mi yàlla na yàlla barkeel ñi nga xam ne ñooy kilifa yi ñi ñu jiite ci gouvernement bi kilifa aada yi kilifa diine yi képp koo xam ne yaa ngi yeewoo fii ci Sénégal ngay sénégalais wala ngay doxandeem ak foo mënta jóge yàlla na yiwu yàlla wàcc ci sa kaw ci darajey Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ amin
mbokki déglukat yi fii la ñuy yemale sunu émission maa ngi leen di sant ci déglu bi te di leen fàttale sunu téléphone di 77 074 35 35 yàlla na yàlla sunu boroom wéy di leen barkeel tey wàcce ay yiwam ci seen kaw ci turu Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ mën ngeen jokkoo ak ñun ci 77 074 35 35